I don't know. Hey, Hey, Hey, nee na suñu ñaan li ñu tànn bu amoon ci sëriñ Ismaïla njëriñ nee na bu boobaa de dinañ la jëriñ bu baax Diouf ba nga xam nee na sigil nga ñu rek Diouf nee na gis nañu ni nga jàppe suñu sëriñ bi nee na ba ñun ñëpp nee na dañoo bëgg ci yow lool Diouf nee na cant nag daa mëntawee sub cant nee na bu rombee foofa it nee na ñu ngi nuyu sëriñ Xaadim Diouf mi faate um fop nee na moom ak mboolee seen rakkam rek ah simnaayo o sëriñ in nee na di nuyu suñu sëriñ soxna maam nee na soxna maam jaara juuf te ref oxa andoona yee nee nga mu doon it jëmm joo xam ni wiin we kaa a na nit ñi dañoo daa wax ni diw kaa jik waa ina nangamuk nee na diw def ñu doon jaay ne nangam la ndaa sin ndaa soxna maam de nee na waaye soxna maam jaara day jik way ina oɓi sin nee na jaay nañu ne doomu sëñ ismaila la naam jik wuye ba of di woo nee na ndax jaay ne diw sama baay la te ref ba foppa yaakaar it nee na mooy sa baay ñépp yaakaar ko woo itam nee na yow it o geen wa keena la nee na nga taxaw taxawaay boo xam ni fop ka yaakaar ngoo nee na ñëpp dañuy wëlbatiku yaakaar la ake ndan daal tete reftuma nee na defar daal la nekkee njàmbur siin bee kene moom na loolu ñu ngi la koy seere bu baax Diouf kaa koy na nag fop mbaagee lay nee na ñi teew fii ñoo jël kaddu ndaawe ngat naa njàmbur fop waaye mboolem ku jóge njàmbur tey ak it na gërëm nañu soxna maam jaar seen Cheikh Ndigal fan ne it nee na seen Cheikh Ndigal mii toog it ah na ba muy dikk fii o jax ma dat kandeer nee na ñetteelu yoonam nee na ca la ma indaale woon man sëñ Ndiaye seen mii nee na na ma gisoon ci moom ci jikko ka yok wa rek nee na ak ngëm nee na day yokku rek ndax dara mosu cee nee na waaye dara mosu cee wàññi yaam i ngar anga nee na ndax buñ ñëwoon ba jubu daaru salaam fële ka daa pa kaala um nee na sëñ Cheikh Ndigal di doon laal ka lal kaalaam awatin junni teg nee na dindi kayitu junne teg ñi tegoo téeméer nee na ñun ñu teg téeméer wene teg juróom fukk ñii teg juróom fukk wene teg xarba xay ñii teg fukki dërëm tala ba li nga ante nee na mu ne bu fa sëriñ ba kenn wax ne lii la diw joxe teeroo garab jitun kenn na loolee la ko yàlla fay lii mu mu nekk nii tey resasanam bi daf ne jaareem nee na ba nga ko sa kër gii ca njaareem rak nga jegee xabi nee na booba sëñ Cheikh Ndigal dencul juróomi dërëm mi fan ne jegim xabi na man si njaay seen mi it fekkul ma am juróomi dërëm la kas wi kasaali nee na ñeneen ñi ñu àndaloon naka noonu taje go doga neena seigne cheikh ndigal sen amab dogu allah tebit kembin fak parigo neena wax ne keuru ci ismaila duma ko sakke tay berigo muk bina nga ka yelwan neena keur gogu dañu and ak seigne cheikh ndigal yelwan bu am ko ranga bodi neena boba ak legi neena na mu mel neena nam melon kérok la mel ba tay ji neena seigne cheikh ndigal amul ben soppé neena du bayyi ab talibé mu xif nee na doo tawat mu bañ la faj jek na problème bo am mu taxaw ca tem bon sëñ cierno nee na mbolo mi nee na mu ngi len di jotli ay kaddu yu Serigne Cheikh Ndigal sen nee na kaddu yu jëm ci yaakaaram nee na tey ak ëllëg nee muy Cheikh Ismaïla djouf Nouroulahi nee na Cheikh Ndigal na mu ngi lay siyaare bu baax djouf nee na te di la sant bu baax nee na di ziyaare njaboot bi yëpp nee na di ci jiital Cheikhul Khadim Diouf ak soxna maam Jaara Baxdaat nee na ak mboole seen ñi topp seen ginnaaw nee na ak mboole seen ahlul bayti muy say mbokk yëpp nee na ñoom ñëpp la boole di leen ziyaar nee na di ziyaare dëkkandoy daaru salaam yi nee na di la xamloo rekk ne Diouf nee na kaddum teyam yi nee na ay kaddu yu cant kese la na wax dëgg yàlla nee na sant na la bu kattanam jeex nee na lépp lu mu la mos a wax rek nee na lépp lu mu la mos a ñaan it nee na mu ngi lay yëgal bés ni ki tey na loola antu na nee na ñaanoon na la mbooloo nee na mu ba mu mën a ànd ak ñoom ba liggéeyal nee defal nga ko ko nee na ñaanoon na la xéewal bu mu la mën a liggéeyal it nee na defal nga ko ko nee na ñaanoon na la oto yu mu la mën a liggéeyal nee na defal nga ko loolu nee na ak leneen lu bëri loo xam ne moo ne su koo lim nee na lépp lu mu la ci mos a ñaan nee na ba mu tàbbi ci sab nopp nee na loola moom defal nga ko lool nee na bon amatul lenn lu muy wax nee na lu dul jërëjëf Juuf nena sant na la bu ci kanamu suñu borom nena santat na la bu ci kanamu suñu borom nee na bu gat la ci teg rek nena mom señ cierno mi da musa andak ànd bi ñun mbolo mi yépp am fuñuy dem nena am ñu ñu taseel ñoña di daan seen doole nee señ Cheikh ndigal na len gis ngeen ñi ni ñuy def mu ne bu si ismaila nee na ñun ñi ñëpp ñi nee ñee la ñuy mel nee na wala boog nu ko gën a yées ah, nee na keroog sëñ Cheikh Ndigal da lay san nee na ba daanu jëlub leer ci biir oto bi ah, nee rek di tuuri xéewal ci biir oto bi nee loolu sëñ Cerno la ci na ci ñu bëri ci ñoom sëñ Njaay fekke nañu ko nee na gon cant Ndigal san nee lottu nañu lool nee na ci jotli la ko waaye nee lépp lu ci mën a bawoo ci lamiñam moom sëñ Cerno nee li sëñ Cheikh Ndigal denc ci xolam nee na ëpp na loolu foofu ci balance mbokki jullit yi suñ bi nee na asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu nee mu ngi siyaare ñépp di siyaare Sénégal ñépp di baalu ak waa Sénégal ñépp ne mu ngi jekke ci siyaaram sëñ Muntaqa xalifatul am sëñ Muntaqa Mbàkke di ñaan yàlla yal na ko fi yàlla ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa ci barke xaadima rasul di siyaare tarixa yi nekk ci Sénégal ñépp tiijaan laayeen sen hadir ne ñep mu ngi len di sen gam di sering serigne Ismaahila djouf nourullah di ñaan ci yàlla tuk lor ak serer yal na fi yalla bayyi ci sen maqam ak mam ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi kon Serigne Cheikh Ndigal seen ak mbooloo mi mu àndal ñépp nu ngi lay sant bu baax di ñaan ci yàlla ni ngeen fi teewe ji yàlla ngeen teewe noonee déwén ci daraja yonent bi ci barke xaadim rasul ñuy sant itam sëñ Njaay Seen mii nga xam ne it moo ubbi waxtaan gi te li nuy wax ne olof day wax naan nee na ku la mag op lay sagar kon xëj na nag lii nga wax si njaay seen yéen a nekkoon démb ba jii te boobee xëj na boobee jafe woon na lool ndax ni nga waxee njaal been day metti foo ko fekk rek waaye yàlla lépp lu waay di dox yàlla dana ko ko feyal kon mel na ni yal na la fi yàlla yokk bàyyi sëriñ Seex itam ñu ngi dagaan ci yàlla ci barke Sëriñ Tuuba ci doole maam Seex Ibrahima Fall yal na la fi yàlla yokk bàyyi lool yokk wér yokk fan yokk warsak si ndax lu ci ne ci coobare suñ borom la doon ak ndimbalu suñ borom yàlla nag lépp lu ko soob lu ne mu def ko ci jaam ji li mu def nag lépp jóge na ci ñun tàppi ci yow waaye nag wax dëgg yàlla siñ si yam leen a gàcci nga laama ne fukki fan ak juróom li nga dajale ci diggante biñ tàmbalee ba léegi nee na lépp indi nga ko ko te incha allah yi tey ne ni te danañ la ko tegal foo xam ne lépp ci siraatil mustaqim rek lañ koy teg ci lañ koy tabal yaa xam ci njaboot gi yaa xam ci dëkk bi. yaa xam kilifa diine yi waaye lépp daal incha allah danañ ko tabal ci lislaam danañ ko tabal ci njaboot gi ñëpp ñu ñaan ci yàlla ni xaalis gi tonu lépp maa ngi ñaan ci yàlla yal na ko yàlla yokke noonee say fan ba nga am téeméeri at ak ñaar fukk yàlla mën na ko yàlla la ko yàlla defal ne lii ñuy wax nag nee na dañoo wóor te xëj na koor nag ki wóor di jokkoo ak yàlla xëj na lum ñaan yàlla yàlla defal ko ko nee na sama néeg laay ubbu daa dinaa fi le fukki rakka te duma taalu wantireteer sax li ma ci jublu moo di nee na leen seet ci suma yaram mbub mi may naafe nee na doy tooxit waaye noonee laay tëdd ak moom sax ndax ne sunu borom ndee nga foog ne dama bëgg lu set ci ma kon nag bu ko defee yàlla nga xam ne moo am kunam te suñ borom kat lu ma nekkun fayakun mu daal di ne kon yàlla maa ngi lay ñaan nga kunal ma suñ seex ak ñaar fukk mënum am ak katan ak wér ak mbooloo mi mu àndal ñëpp ci doom ba ay seex yi yëpp yàlla leen ko yàlla defal ne nanu nag amul dara yàlla lan am ak yonent bi ak xaadim rasul lu ci ne lu ne xoolaatu wun ko dañ koo doxoon démb soo léegi nag tey ñëw loolee nag boo ko déggee moo lay dem nee na lay dem la dem daal mooy lu tey rek bañ ñëwee laaj ma sa diggante ak Serigne Touba nu mu nee na day mel ni suuna wanga ji nga lekk ko bay agaat ci waxtu yàlla taw nga ji ko sa dugub boobee sax ba ba ba jiitu te lépp doon dugub ba ba démb ak bi tey jii nee na lépp benn la mënoo koo xame nee na dangaa joppe fekke démb rek daa añoon démb waaye te it dugub googee ñu ci lu yàgg ak wiñ ci dem kenn xarañatile ko kenn xamewu ko noonee la mel ak sëñ Touba sëriñ Touba Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine sëriñ Ismaïla Diouf sëñ Cheikh Ndigal Sène nee nag nee loolee nag suñ moo ko tampe ca aas te nag lii nuy wax furaatuwul ko déedéet la dem mooy li rek kon nag bu ko li may wax rek ne nañ jël liggéey ji ba jublu ci yàlla yonent bi gërëm ñu suñ jawriñ gërëm ñu muy xaadim rasul kon nag bu ko defee dama wax ne ñun ñii nga xam ne dañoo yeesal si digganteeg Cheikh. akum taalube ak i doom yëpp nañ góorgóorlu fu ñu jaar daal ñuy teg ñëpp def ko tampon nee na loolee ba mu rëcc ba mu bu ñu ëpp bu ñu yees bu ñu gëmeñ jàpp ndax kat ñi àndoon ak Serigne Touba Serigne Touba daf leen doon wax naan ëpp leen yéesu leen. gémmiñ jàpp leen kon nag ñu ni itam bu ñu ëpp bu ñu yées bu ñu gémmiñ jàpp nee na mooy ñi nga xam ne dañoo dem ba wuy dañ àndoon ak Sëñ nañu lu yàgga yàgg bi ñuy laata ñëw ay nit a fi ni woon te jal nañu bu ñu ñëwoon gémmiñ jàpp leen ngeen bañ ñoo gëm kon nag ëpp leen yéesu leen geneen jàpp leen kon leen lañu yàlla dimbale ngeen góorgóorlu bu baax bu leen ëpp bu leen yées bu leen geneen jàpp yàlla nañu ko yàlla defal nee na sant na bu baax di ñaan sëñ Cheikh nga dellu si tey ati ati ati at ci barki Sëñ sant na bu baax ngeen ak ak jàmm nee na sant na bu baax nee na lii ngeen fi indi nag incha allah lépp danañ ko dugal ci diini ji yàlla ñu yàlla jàppale nee na sant na bu baax suñ xaar bi muy ak njabootam ak rakam yëpp nee na sant na sant na leen bu baax ci njiital Saa Jaara ak mboolem mag yi ci biir dëkk ñëpp. nee na sant nañ leen bu baax magu Daaru Salaam ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp nee na sant nañ leen bu baax ñi taxaw diine bi ci njiit Alxaaji Moussa Sarr ak noddkat yi ak ñi ñi yeete ñëpp nee na sant nañ leen bu baax ndax Daaru Salaam kat nee na kenn du fi ku bëgg a naaf si moom moo fi te kaamil bi wax dëgg yàlla xaajale na kon nag bu ko defee sant nañ bu baax jumaayu daaru Diouf itam nee na foofa yebal naa fa ay naa ñoo xam ne ñooy taxawee foofee naaf bi sëñ Thierno Diouf ak sëñ Modou Moustapha Diouf ñoom ñoo dem daaru Diouf ji di fa naafila janatu sëñ Moustapha Diouf moo fa féete Abiyatin Xaadim moo ko féete Daaru Rahmaan Sëñ Basiru Juuf moo ko ndax moom ceer mu ñoo fa doon ne waaye te ceer no daa ànd ak Sëñ Moodu Moustapha Juuf jumaayu Daaru Juuf itam sooroor ya taxaw nañu ba def nii ne ñag bi it nee na yëpp nañ fa besan ñaan nañu yàlla ñu waajal karaw yi loolee lépp comme yaay jawriñu liggéey bi na la wóor ne loolee lépp nee na dañoo jublu ne def nga dem ci def ci lii nga fi indi lu fi ñëw itam njaboot gi yaa koy bokkal yaa xam Daaru yaa xam ci xale yi kenn ku ne ci sëriñ yi dama koy bokk ak ñoom. nee na ndax damay def kunaar ba daane ka aw naaf bi ma jox la ñeent fukki junni nee maa ko def addiya ci kaamil kenn ku ci ne daal dem di fa naaf noonee laa leen di defal kon sëñ kon mel na ne li fi indi lépp incha lépp du dana dugg ci diini islam nee na kon yal na yàlla def nga teewaat fi ay ati at. sëñ Moustapha Seen itam ak mboolem rakam yi ñëpp góor ak jigéen nee na nu di sant nee na seex yi ñëpp ki njëkk seex beeg ki mujj seex nee na sant na leen ci njiit sëñ Aliou Faye nga xam ne mooy seen jawriñ nee sant na itam nee na ñi la njëkk a mel ni moom si Ousmane borom baax ñoom maam Thierno ñooñu nee na fàttewuñ dara nee képp ku la mos topp ànd ak yow fàttewuñ la bi mu fi nawetee moom si Ousmane borom baax nee na boobee juróom-ñaari taalu bi rek ñoom la nawetal fii ci dëkk bi ñoom maam Thierno nee na fàttewuñ dara mu xam nañ ne fu ne bés bii moo leen yiiteel. ku bokk njàmbur ndogu gi moo la yitteel lii ba nga jëli géej nee na dañ koy def loolee lépp gis nañ ko bu nga boo gisee bu ñuy naan xale yi njaruñoo noyoo ma ne ah jar nañoo noyoo ndax ñoom ñoo wer fu ne fu ne dañ ma fay fekk bu ma demee fu la ku ñëw ma ne amoon kay xame naa la jarut wax kon nag bu ko defee ngeen góorgóorlu bu baax mag ya nii lañ nekke woon doon leen ay taalube rek buñ leen digalee ngeen def buñ leen teree ngeen bàyyi kon de bu ko defee incha allah buñ teewee ëllëg ci kanam suñu borom du ñu am lu ñu naqari mukk bés ba yàlla bàkku Sujaajatu sujaaja kawkabu buruy dara jine ak doomi Adama dara du yëngu dara du yëngu nee na boobee nee na boobee bés booba Sëñ Tuuba wax ne ah bés boobee nag ngelendu nga nee rek a koy war yonent bi ko war bay ma nee na man it ko war bay la toog a koy war. ñun tam bés boobu ñoo ngi ci mbubu Sëñ nee fa yar dugg fa rek incha allah kon nag ñeen góorgóorlu bu baax bu leen tooñ kenn ku leen tooñ ngeen jégal ko kon daal sant na ñépp di ñaan ñu ay ati at ci barke Sëñ Tuuba mag ñi ànd ak man njiital siñ alaaji Diop mi siñ Ali Diop ak seen al alaaji Diop ak siñ Masamba ak ñoom alaaji nga ñoom ñëpp moo leen di sant kenn ku ci ne ci ñoom daal di ñu féete nee na xam nan ko yal leen ji jala jàppale jara ngeen jëf wasalaam dëkk tey naan amin Amen. Amen. Amen. Amen. noon fop layo sin Ismaila Diouf ñaasa mi ne tawat